ci war ci taxawaay ci coordination ci soññee ba ci ñun sax da koy da koy def xañ na léeg-léeg sax su suñu ak jokkoo ak yow dana dana fa dana faral néew lool te loolu war a taxawaayam la kon ñu seeral la ko seeral la ko baax a baax waaye di nuyu sous-préfet bees bi nga xam ne moom mooy wax yàlla yàggu fi gis nañ taxawaayam ak ci ci ci ci Touba na am na ay ay ay ay liggéey yu jot yàq ci yeneen événement waaye gis nañ mooy disponibilité am ak ak farloom ci ci ci ci ci ci liggéey kon loolu lu seer la bu baax a baax euh, di sant nag chef chef de service yëpp xam naa màggal gi moom yaakaar naa ne yéene ji nga xam ne am ñoom am nañ ko ji te war na ko ci li passé ndax day mel ne daaw mboolem mboolem lañ fa laajoon moom xañ ne ministre wax na lépp sotti na nañ ko bëgg ndax loolu moom yàlla yàlla yàlla mi ko mën sax def ko waaye la ca am solo mooy lañ sàkk woon la ca yéw la ca yéw bis moom lépp lépp lépp sotti na ndax yaakaar naa ay jàmbat ay jàmbat bëriwu ca te loolu nag euh, taxawaayu chef de service la ndax euh, xaj na joxe ndigal da ngeen man waaye nag la koy rafetal ak la koy mottali ci ñoom lay jóge waaye gis nañ ci ñoom engagement ak ak passé bu wér ci ci lépp loo xam ne dana yéwénal euh, màggal gi ak ak ak ak kër gi kon daanaka xam nañ lii moom day day luñ baaxoo def rek waaye buñ buñ teewutoo ne jàpp nañu li war ci màggal war ci kër lépp xam nañ ko te te te am na am na ñeneen def ko kon loolu dañ leen ci rek luñ ci mën luñ ci defoon daaw rek luñ ci mën a yokk ñu yokk ko ci gën a mën a rafetal ñu gën ko rafetal ndax bis bi moom mooy bis mooy mooy mooy bisub sëriñ bi mooy gis mooy bisub njabootu sëñ son bi yëpp ndax mooy mooy bisub sëñ son bu te sëñ son bi nag moo ñu boole ci sëñ Tuubaa kon bisam du yem ak benn bis benn bis ci noonu kon nag bu ñu ci jàppale lu lu loo def ñu xeeb ko waaw donte la nga def ba rëy na waaw kon daal loolu lañ ci di la di la di la di la di la jot li eh, cant sëriñ bi ak i ngërëmam eh, ndax lépp lu ngeen ci def rek dara du ko ci ëmb waaw kon nag moom it sant sant na gërëm na bu baax a baax waaye di la jot cant ak ngërëmul suñu suñu abdousaman bi nga xam ne moom mooy mooy mooy moo jiite liggéey bi te ñu ànd ko ak ak moom ak ak mbokki taalib yëpp ah, di ñaan suñu boom defal ñu feex ba mbooleem aajo yoo xam ne am nañ ko ci bis bi te teg ko ci seen loxo yéene ji ngeen ci am ci mu sotti loolu suñu boom jàpp nal ko xëy na diggante bi xat na mm, te loolu xam xam nañ ne waxtu bi màgg màggal yi dafa bari mm, xëy na dana dana war a seede ni mu ni mu war a teele doon teele waaye loolu loolu lépp jàpp naa ne du ci feeñ ndax seen xam nañ ne maîtrise ngeen liggéey bi te am ngeen ci yéene kon ñi li leen ñaar rek mooy yéen yéen ji ngeen ci suñu boom dafa leen kàttan ba nga mën ko mottali euh, di sant ñëpp di ñaan suñu boom it bis bii ñu ma dëgmal nga nga xam ne mooy li ma ko waxee léegi mooy bis suñu son bi comme ni nga ko waxee suñu son yi bokk ci njabootu Sëñ Tuubaa gi bokk ci ñi nga xam ne it ñëpp leen ñëpp ñëpp ko joxoon cër ndax féete gum féete woon sa njabootu Sëñ Tuubaa yëpp ci ci ci ci yar ci yar njaboot gi ak jàngal leen nga xam ne euh, dafa toogoon Tuubaa génn génn ko demut demut fenn sa toogaay bépp mooy di yar ak jàng rek ci la nekkoon ba mënees naa wax ne ñi ëpp ci yoonu murit wala ñii ci gën a xam fi mu ne nii moo leen tàggat moo leen jàngal moo leen formé kon moom moom dafa dafa daanaka moo defar moo defar moo defar ñi war a yor ñi war a yor yoon wi kooku nag am na cër bu mag ci ci yoon wi ah, boo xam ne yaakaar nañu bisam mm, bis bu ñu bu ñu war bu ñu a taxaw la ah, di sant rek xam naa moom suñu suñu Abdou Lahad Ka monsieur le maire moom ni mu ko waxee dafa bokk ci comité bi ndax Euh, moom euh, sëñ Abdoulaye Kër Yusuf ku ne xam ne ni demee waaye di di di ko di ko sant bu baax nag te di la te di la ko seeral ndax euh, màggal màggal gi taxawaayam day day day romb sax li ñuy wax ci CRD bi ñaare léeg-léeg sax dañuy dem ba am yitte joo xam ne bokkut ak ñi ñu waxoon ci CRD bi waaye fu mu ko yëgee moom it danañ taxaw taxawaay moo sëkk xañ na ni mu ni mu demee ci kër gi moo tax waaye it taxaw ci liggéeyam it ba ba lu agsi ci moom tam war koo yéwnal ci ci mbirum dëkk bi rawatina mbirum kilifa yi. waaw loolu loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy seer bu baax a baax mooy mooy di ko ñaanal bu baax a baax suñu boom gën ko yokk ndam ci liggéey bi loolu daal mooy kàddu yoo xam ne doon nañu ko jot li ci turu sëriñ bi di ñaan suñu boom defal ñu tax yopp ñu àgg ci àgg ci ak jàmm te lañ cey sàkku lépp ñu ngërëmu suñ ci baax suñu boom defal ñu te defal leen ko ci yow délégation bi nga ànd yëpp maa ngi leen di dellu di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di la gërëm tamit si kàddu yu rafet yi nga wax jëmale ko si man si préfet si sous préfet ak monsieur le maire dinañ ko jàppee comme ay ñaax pour que ñu gën a góor góorlu que lu ñu defoon ñu yokk ko kon dégg nañ bu baax li ngeen fi wax ci ay demande jàppee ko ci wàllu sécurité bi muy bërëb boo xam ne police moo ko yore donc ñoom ñooy indi éléments yi pour sécuriser ko ñooy indi tamit barrières yi ñoo war def tamit lépp loo xam ne nit ki war na ko def taxawaay depuis ci màggal petit fils yi ba keroog si bésu ba màggal gi ba ñu bàyyi ba ñu romb màggal gi sax ba ëllëg màggal gi pour que ku fa ñëw mën a dem ñëw si jàmm waat si jàmm pense que commandant corps urbain wax na léegi mos disposition yi xam ne dañ ko jël pour bi mën a mat dama koy complété rek nañ daaj tamit jeunes yi bu ñu ñëw ñu daale ay barrières daf fii dinaa fi demande sans barrière mais yéenay def appréciation bi bu ñëw ñu defaale indaale ay barrières suñ ko boolee barrières yi xam ne gendarmerie yore na ko parce que dina mën a mate pour que ñu mën a couvrir cérémonie bi normalement waaw. gendarmerie tamit dégg nañ seen engagement si barrières yi mais surtout également yoon yi ñoom ñoo ko yore kuy ñëw Touba kuy génn Touba jóge feneen walla jëm feneen euh, gendarmerie moo la yor contrôle si yoon yi ñoom te ñu demandé la ñu yobbal jàll jàll jàll bi ba nit ñi mën a jàll normalement te lu indi benn jafe-jafe. si wàllu sapeur pompier tamit dégg nañ leen donc euh, ambulance bi ñu leen laaj xanaa di ko mën a indi ak ay éléments si nombre bu doy pour mën a couvrir cérémonie bi waat ko rek toujours ñaar la nag cérémonie conférence des petits fils noppalu benn bés ñaareel ba di màggal ba pour waa ONAS note nañ donc 120 voyages 10 jours avant màggal gi maanaam le 26 war nañ ko commencé incha allah. jëm donc avant ñu yegg la si avant ñu yegg si euh, ramadan bi avant ñu yegg si koor gi ñu mën a yeggale ñu xam ne beexal nañ affaire vidange xanaa ne même condition boobu mën nañ ko poser sax c'est du jeûne def tout vraiment ba balaa ñuy commencé koor gi ñu mën a ñu mën a yeggali seen euh, pompe li ñuy pompé donc service du jeune pour continuer foofu ñu ngi leen xaar donc ngeen compo pompé euh, deux cent deux cent deux cent deux cent maisons voilà ni ko maire waxee dinañ leen jox cinquante litres produit pérical bi leen demandé ak deux cent litres gasoil pour santé ñu ngi xaar poste avancé quatre postes avancés ñaari ambulance ak ay bons médicament noonu si Sénélec ñu ngi xaar tamit branchement provisoire au moins quatre jours avant màggal gi groupe électrogène trois jours avant màggal gi ak mise hors délestage ngeen jàppale tamit commune si wàllu éclairage public bi si entretien bi ñoo war a def si éclairage wàllu eaux et forêt donc ñu ngi xaar ngeen topp ak waa Mbacke ñu yëgala leen permis de coupe bi ngeen topp ko tamit si kaw si direction eaux et forêt pour ñu mun teel ko génne boo xam ne ni mën a jëri matt mi Tamba indi ko balaa ñuy yegsi si màgget bi waa douane nekkuñ fi may jël nañ note pour ñoom hmm? incha allah pour yombal ni ñuy ñëwee dinañ ko yombal incha allah li moom surtout côté douane moom parfois coordination yi laaj. fu mu ab tàggee ñu war wax ñu xool ñu ñuy pour que mun a. noonu si wàllu wàllu commerce commerce moom dafa voyagé nekk fi dafa dem Turquie yaakaar naa waa élevage jël nañ note pour ñoom incha allah ak Sonatel jël nañ note pour ñoom dinañ euh, def contrôle bi ñu war service d'hygiène dinañ def contrôle service du def contrôle moom lépp loo xam ñu ko fay lewetal war ko mën a jëfandikoo muy ndawal jëfandikoo si ko si màggal gi wala mu nekk ay yeneen produit yoo xam ne dañ koy jëfandikoo si màggal gi yaakaar naa ñoom it miin nañ liggéey bi incha allah dinañ ko dox ni moom su waree Sonatel tamit li mu daan indi mooy ADSL bi ak wifi bi dinañ ko indi incha allah wàllu presse tamit nañ daan defee couverture bi yaakaar naa ne RTS li ñu si daan def surtout mooy presse publique bi presse privée tamit ñu ngi leen di ñaan tamit ñoom tamit ñu ñëw bokk si mais bëri moom ñoom la gën a war moom wareef la si ñoom hmm? waaw si RTS donc li xanaa li ñu daan def dañu koy defaat incha allah si wàllu hydraulique muy juróomi camion citerne ak fukki bâche la ñu demandé loolu tamit lu ñu mën a def la dañ ko def incha allah waa commune dégg ngeen ko ni ko maire waxee moom këram la hmm? waaw xanaa ne donc lépp loo xam ne maire war na ko si def ñoo ko si taxawee ba si taalib bi di war a def tamit ñu def ko si taxawee incha allah ah. donc euh, ñu ngaa fàtte ko rek c'est cent vingt voyages euh, cinq camions ramasseurs deux pelles mécaniques euh, deux cent litres gasoil cinquante bi ñu doon wax sànq ak yeneen yoo xam ne si wàllu éclairage public lay dem mooy ampoule ak yu mel noonu donc parce que li si maire doon liggéey daaw dina ko si liggéeyaat ñu am yaakaar rek bu ñu yeggee tamit si évaluation ba lépp dina ko matee en tout cas ñu bu baax sëñ bi